ginnaaw bi mu defee ab vidéo doon ŋàññi ñi nga xamante ni dañ koy tuumaal naan kat dafay représenté ñi nga xamante ni ñoo di góor jigéen ñi kii di Wally Balago Seck nag ginnaaw bi mu waxee li ko métti lépp ba noppi paré na ngir dal di am ay plainte yo xamanteni dina am ñu ko jébal ci plainte yoy nak am ci ab imam bo xamanteni ni ciblé nañ ko ci ak ki nga xamanteni modi di Karim khurum haq avocat am yoy nak ñi ko composé moy ki nga xamanteni moy maître Abou Dialikan maître Bamba Cissé ak maître Aline Badara Fall ak ki nga xamanteni moy maître souleyman Soumaré ñom nak jot nañu dajé dembu dal di waxtaan ginaaw bi ñu waxtaanee ba nopi nak dal di nañuy ngagn bu baaxa baax ñi nga xamanteni dañuy nga xamanteni nak modi doom doomi coon balago sekk bi di waali balago sekk ñoom nag jot nañu xamle ni daal ci pelent boobu dina am ab imam boo xamante ni dina dina ci bokk muy imam bi nga xamante ni demoon na ci fële nga xamante ni mooy ci DTV wax fa loo xamante ni li mu fa wax lépp wax lu ko neex rek la doon def ci li nga xamante ni moom la avocat bi wax bokk na itam ba tey ci li avocat yi xamle ñu ni ki nga xamante ni mooy Abdou Karim xurum Abdou Karim Gueye xurum xaq ñu ni moom itam bokk na ci ñi nga xamante ni ciblé nañ ko ak yenn ci ay site internet yoo xamante ni nag wax nañu ni dinañ leen jébbal li nga xamante ni moo di ay plante su ko defee ñoom li ñuy tuumaal kii di doomu Thione Balago Seck ñu mën a ñëw daal di indi ay firnde ci lu ni mel ci fàttali nag kii di Wally Balago Seck soirée bi nga xamante ni moom la mujjee def bi nga xamante ni signal yi dagg na ñu gis ab ak ay couleur yu bëri ñu daal di affiché ci la nag ñi nga xamante ni ñooy sànnikatu xeer yi commencé waxaat ni que ni kat loolu nga xamante ni nii mooy génn muy dellu si waat di wanewaat li nga xamante ni mooy couleur ñi nga xamante ni ñooy góor jigéen yi kii di bala Balago Seck nag daal di weddi ba set lu ni mel xam le ni daal moom yooyu yëpp soxalu ko doomu jullit la te doomu jullit lay musa doon li am ba des daal mooy que ni pare na pôle d'avocat am ba daal di préparer li nga xamante ni mooy plaintam te daal ñu xaar ay bés yu néew ñi nga xamante ni ñoom la ñu fës a yéene jox ay plainte lépp daanu dana leer ñoom itam dinañ xam ana fan la wànneen di mujjee ki gëtam